asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk internet yi Senfootball TV ñu naa leen bu baax baax jeex leen képp ko xamantene ne bay ci seen bul xaar abonné ci cliquer ci cloche boobu ngay vidéo bu ñu dugal nga parce que daa fàtte tamit une vidéo c'est très important tay na dañu ñëw ci revue découverte bu xamantene gëj na def découverte ah mais quand même je bi wax ni

damay joxe information bi pour wax leen ne dama koy suivre xam gën naa def découverte parce que temps yi actualité bi international du Sénégal mercato bi championnat yi tijji na mais découverte dina ñëwaat xam nga man samay découverte bëri na euh, à chaque fois li gën a intéressant si découverte mooy xamal Sénégalais bi naka ah am nga ay joueurs fii ci réew mi am nga ay joueurs bitim réew mais am na ñu xamante ne xëy na lumière amuñu ko visibilité amuñu ko mais ñoo ngi nii mën nañu football bàyyi leen xel te boo amee benn joueur bu xam ne 18 ans MLS c'est plus le MLS euh, ay dix ans ci ginnaaw MLS bi c'est c'est dur Là il euh, Ibrahim bu mu fa demee pour moom day ñëw jël trophée ndox doxam il mu jikko jël laajal Gérard xam nga laajal David Villa laajal joueur yu bëri Thierry Henry keneen ak keneen Juninho ñoom ñëpp jaar nañ fa xam donc c'est un championnat boo xamante ne bu jógoon sax ay 32 ans 33 ans lañ fay dem mais les jours yu 28 ans 27 ans nekk si championnat yu réputé cinq grands championnats de dañuy dem MLS donc boo fa demee nga nekk Sénégalais dañ lay bàyyi xel te xam nañ ne ñun euh, yàlla jàppale nañu vidéo bu ñu def jeunes yooyu dañ ñuy contacter dañuy am mbégte ñun tamit dañ euh, li leen wax mooy que vidéo yi bu ñu koy def c' est juste pour jox leen force pour wax leen ñun sénégalais yi ñu fàttewuñu leen wala boog man Mohamed personnellement comme que man tàmm naa di leen découvrir depuis 2017 quand même maa ngi ciy bëgg yàgg fàttewuñu leen di dañ leen jox courage ne leen ah football leen fi ngeen nekk nag xëy na laaxatu na leen waaye parce que man ni man à chaque fois dinaa xool seen statistique dinaa xool ndax titulaire la dinaa xool sa nombre de matchs. te s'il le faut bés boo paree ñoox ma gis ne war na am place équipe nationale du Sénégal que ça soit petite catégorie wala équipe A dinaa def vidéo wax ci yow donc mbokk yi euh, xëy na vidéo bii nag peut-être dinaa ko dugal euh, sur Senfootball TV ak vidéo am quoi peut-être sur Senfootball TV damay jël moins de risque pour problème droit d'auteur wala genre mais sur Senfootball TV dinaa def vidéo yi xam donc euh, pour wàll leen kam mooy booy bi ngeen xam ko bu baax a baax a baax en tout cas c'est un jour intéressant que dinaa suivre fii ak deux voire trois mois bu amee parce que man tout le temps balaa maa jugé joueur dëgg-dëgg foog nga am quinze voire vingt match pour ma la jugé si jugé mais di nga xamal ne rek moom euh, si kii la jógee si kii si kii euh, Salif Diao la jógee si centre donc euh, booy bu xamante ne dinañ ko bu baax a baax mbokk yi nag ci commentaire pour ñi nga xam wax leen seen xalaat ak seen gis-gis di leen wax ne fii ak deux mois trois mois dinaa def ci moom vidéo mu leen di jaajëfal nag bu baax a baax di leen wax ba beneen sur